man ka moom ma xel la ma neex u xalaat xam nga léeg-léeg ñu ne xel xalaat na lu sone ñu ne ak xel eh, xel xel bon xel ngay xalaat la bon xel la. moo moo tax tëj xel. kenn mënu ko tëj. kenn mënu ko mm-hmm. jàpp. mënoo mm-hmm. am nit mu xalaat. léegi nag li xew Sénégal lan la dafa am benn seuil de soxor bi Oumar doon wax sànq seuil de soxor bi Cheikh di wax seuil de soxor bu feeñ. sur le cas de, du bus dont on a parlé attentat ou pas moi je, la question que je me pose toujours mooy ka def parce que mën nañ ñëw ne diw moo def mais leerunu amuñ ci preuve kenn wanewu ko dañ ne rek am na léegi est-ce que parce que manifestation yàgg naa am dégâts collatéraux am mais manifestant du du faat manifestant du ko def lu bon moom kay nit ay infiltré def manifestant lu bon léegi léegi ñu jiñ ko manifestant wax ak dégg loolu xaw ma hmm. attentat la xamul attentat déjà le terme pose problème parce que Sénégal dañ def attention ci benn affaire attention bi moo di kenn du wootal lu bon ci yow kenn du jël lu bon di ko fowe muy nekk lu ñuy miin yàlla ci yàlla musal. amiin tey terrorisme bi ñoo wax bi muy am si jamono dans les pays occidentaux c'était quoi soo jëlee diggante. Euh, Irlande du nord ak sud lan la ay nit yu bañ xeex xeex boobu frustration la jóge mm-hmm. entre protestants yeeg chrétiens yeeg ñi ci des ñu xataraayu ñiy taxawee nii ñiy taxawee nii moom am lu mu jur. Mm-hmm. injustice moo ko indi bi ñu demee ba sonn dañoo toog waxtaan li jënti ko jàmm xaw a dellu siwaat mm-hmm. le Pays basque les Corses ak ñeneen ak ñeneen yëpp ay frustration la. frustration mu ngi jóge ci injustice réew bu toll ni Sénégal nan ngeen mënee nangu tey Abdoulaye Wade nekkoon fi Abdou Diouf Senghor ak keneen injustice yi daan am jamonoy Senghor ñu dem ba 2023 muy amaat. su amaatee mooy am na ko mu intéressé am na koo xam ne jàpp na ni noonu la mbir yi war a tëddee am na koo xam ne defe na ni Sénégalais yi dama leen war a jaay doole napp leen ñëpp ne tekk tekk bi am nii Sénégal tekk ab dex la. dex mooy lan. mooy dex bu ne nem ndex booboo gën a danger. Hmm. yàlla nu ci musal. dex bu ne tekk moo tax ñuy tere léeg dem ci ndox ci yoor-yoor. Hmm. lu nekk nga fa. imagine leen fii fii nu toll nii ci senegal ñu ne sénégalais kat dañu am jafe-jafe léegi kon man tey su ma bëggoon jóg ne damay woote Sénégal waaw ñun ñëpp kaay leen ñu dem ñu def marche pacifique ndax dund bi dafa cher kon dañ ñu koy tere dund bi dafa cher. kilo soble mille deux cent mille sept cent soble bu xonk bi mooy bu baax bi ñun ñu gëmloo ñu ne soble bu xonk bi bu Sénégal bi ah soble Sénégal bi de mooy loolu soble tubaab bi yow am nga ko alors que soble bu baax bi soble bu baax bi bu xonk bi ka kilifa bu mag ne ma est-ce que tu sais que est-ce que sénégalais yi ça va ma ne ko laxew mu ne ma est-ce que xam nga ni israélien soble bu xonk bi la ñuy wër mhm. day anticiper prostate day stabiliser suukar c'est fort contre le diabète nit di xëy dundam yëpp muy jëndi garab li kaa faj ne ci wetam non ñuy bay soble bu xonq jël te amuñu fuñ ko yóbbu amuñ kuñ ko jox ñu gas suul réew moomu autorité ba fa nekk moom talent bi mu am yëpp mooy jàppee dóore ak jaay doole xam-xamam yëpp si loolu la dem. non c'est-à-dire euh, parvenir wul euh, mhm. orange Maroc. ki la kaa jox mooy Maroc. Maroc dëkkam xeer la. Mm-hmm. yow sa dëkk terre arable la maanaam yow yow li nga am pour def ay orange ma amu ko nga sàggan ba Maroc du la ko jox la chose moo di ne et malheureusement c'est très difficile à dire moo di ne sunu ay njiit nag dañu am léglé léeg calendrier. ah bon dañu am calendrier calendrier bi mooy objectif. Hmm. objectif est-ce que objectif ba ñu amoon ba ñuy campagne bokk na ak objectif bi ñu toogee. laaj la parce que président Macky Sall ñi mu àndal li ñu campagne lépp billahi zéro virgule zéro bu ñu ko appliqué woon du ñu agsi fii dara du xew jàmm rek ay am mais leen doon wax ñoom lépp defuñ si dara sens contraire opposé c'est-à-dire et pire nan nga mën a comprendre réew bu toll ni Sénégal say doom ba 2023 ñuy fàq di des ci géej gi yow méttiwu la safu la defu la dara lenn rek nga ci am comme solution. mais méttiwu la est-ce que c'est pas trop dire quand même. parce qu'il est humain après tout. Euh, non quand je dis méttiwu la. mooy ci dara. moom daal Twitter rek. jéemoo ci dara loolu laa bëggoon wax sax par rapport à Pape li mu doon quoi euh, Cheikh Omar lu mu doon parce que dans les dans les daguma la vas-y vas que en principe le chef de l'État dafa waroon wax. déplacé wu parce que ce sont des Sénégalais des jeunes Sénégalais ñoom ñoo bëgg dem. à la recherche d'un bien-être fi nga xam ne donc jàpp nañ ni comme nu ma wax nii ils sont désespérés am ñu benn alternative fi Sénégal ñiy jaay seen bien ñiy jaay ay terrain ñi jaay lépp ñu doon am cotiser dem pour dem Europe ñu même bu dee benn nit la ñaar trois ba cinq on parle de cinq ans de trente le chef de l'État ba léegi déplacé wul dem foofu déplacé wul dem Cap-Vert en fait on se dit que franchement nos chefs d'État ñoom lan mooy seen priorité. Mm-hmm. est-ce que ils ont placé l'homme au cœur même du développement. Mm. est-ce que ñoom dañoo pla nit dañ ko jël ne ko yow yaay yow yaay transformé dëkk bi mais j'ai l'impression que nos chefs d'État ils ont un autre calendrier une autre vision différente même de ñun ñi nga xam ñi ngi wax fii moom lañu am parce que en France dans les grandes démocraties. Mm-hmm. bu dee France loon benn nit français. Ah. moo def loolu benn sax waxatuma la ñaar. c'est tout la République française. c'est clair mooy jóg. c'est clair opposant comme. mais mais parce que pouvoir Branco. oui voilà oui c'est-à-dire que. avocat yi ko contre sax. Mhm. ñoom ñëpp dañuy jug def benn say. parce que mhm. ay nitu principe lañu ñun le drame qu'on subit mooy sénégalais mooy toog état wu sénégalais mooy toog fii Sénégal ne waa Amérique am na benn sénégalais bu nekk foofu terroriste la jàpp leen ko. c'est-à-dire c'est un problème d'appréhension le drame dañu am ay après nag j'ai envie la question qui est acteur politique dans ce ñii nekk acteur politique di toog ci bopp koñ anglu koñ Cheikh Oumar ne ci politique bi dem na ba egg benn niveau xaaral ma jege ko non mais grand mais bul setaan sa booy ñuy àndandoo waa mais jaaral suba bureau mu kaa yóbbu ngeen dem ba egg benn station de stratégie un opérationnel bu toogee place su stratégie day jaxase carte dafa dëpp parce que maîtriser wu ko. moo tax ñu naan quelqu'un peut être un super méga mais un mauvais leader. Mm. Mm-hmm. Alors que le bon leader, il a toujours la tendance à mettre la bonne connotation. Ne ah Cheikh Omar Kat tracé na yoon bi gars yi jaar leen fee c'est déjà tracé mais diw ñëw na ñu ne ko tracel moom tracé bi xam lu mu ci xam gas dëpp source tracé ba xamu ko ñu ñëw na ko léegi yaay diriger jiital organiser xamul fu mu war a tracé loolu mooy jafe-jafe bi moo tax tout le temps. dafa jot nag Sénégal ñuy tànn tànneef ñuy xool ñi ñoo fal ñan la ñuy xool ñi ne ci parti yi di xool comment il fonctionne tey jii nii am na nit koo xam ne mu ngi sàkku réew mi man mos na maa seq ak moom non naa wax sénégal yëpp ne leen kii bi ma seq ak moom taxawaay bii laa ma bàyyi leen ko xel. Ah taxawaay boobu su ko amee sama diggante ak moom kon su faloo moytu leen. mi ngi ci candidat yi non dama ne. je pense que. parce parce que nit nit nit mun na. parce que amul da di parce que amul da borom. Mm-hmm. ki nga xam ni ñoom mën na ñëw taxaw jaay la doole ci fii tey su la ko jaayee tey te tegu ko ci yoon bu yoree doole bu ëpp defaat la ko. Ah lu moo tax bàyyi xel. je pense que euh, euh bon mën na ama mais. nit ah, mën na changé maanaam dafa junj. dafa la au delà bi sax kii kii wut. je comprends ak ki am. Hmm. seen comportement c'est différent. tu verras tous les programmes. yëpp ay rafet. mais nice fine. mais daal l' application ak ak yéene bi ba pare moom sax li mu wax ñun dañu am crise de de leadership. voilà c'est ça. c'est-à-dire un leadership fort xam nga leadership mooy am empathie. Mm-hmm. xam nga leadership mooy nga taxaw ci wetu nit ki mu sentir la. Mm-hmm. mais que la personne ne se sente pas ah. délaissée. Mm-hmm. mais xam nga tey ñun dañ dem ba dañu banaliser. on a banalisé ça ay ay ay dire même manifestation day am on a eu des morts on nous sort juste un communiqué. pare nañ ci. parfois le président il nous met en Twitter les Sénégalais ne sont pas sur Twitter. am na fu ñuy toll ci situation dootoo nekkati sax euh, candidat ou président de parti. tu es le lu ah Mansour Mbaye lu mu ne le père la nation. Mm-hmm. bu kër gi yëngoo comme kii li mu bëgg a wax bëgg nañ dégg baatu baay. day dalal pour pour rassurer nit ñi pour wax leen ni que kat situation bi kat metti na wala nangam sangam il faut qu'on retrousse les manches euh, sur la question de l'immigration par exemple na wax sax man mi parent la am naa may président ay doom. yéen parent yi am ngeen ci responsabilité. yéen ñi dëkk ci société bi am ngeen ñu ñu mu bañ a nekk yëfu par par parlo wala yëfu président. mu nekk affaire bi yëfu sénégalais loolu dafay fekk moom mu nekk si benn piédestal boo xamante ni bu la xoolee du la xoolee bëtu. ci man la bokk wala bokkuloo ci man mais da lay xoolee en tant que bëtu doomu réew mi seen jaboot gis nga sama turandoo seen naaw je sais mm-hmm. mm-hmm. yi dañu xëccoo président dañ ko xamul sax mm-hmm. xam naa ni yow mal xi am moom <laughs> ñi nga xam ne amuñu ay cër yu bëri dañuy noppal dañu ñëw dem dox seen mais yenn responsabilité boo ko ŋàbbee la téye ko mm. mais yow sa cas pour ñu lijjanti ko dina metti parce que yàlla moo ne lu ñu la dénk sàmm gi dinañ la laaj mais vous même xar boo xam ne daa mar sax si sa responsabilité la. mais na koy laaj. mais je veux dire que Cheikh Omar je suis je suis euh, d' accord ak yéen par rapport à à, la question bu ma posé. Mmh. au Sénégal on choisit mal. Mmh. on vote mal. Mm-hmm. dañuy fal dañuy folle rek. on on choisit mal on vote mal. Mm-hmm. parce que fii euh, supposons que tey système bi doon en 1960 moo fi am ba tey. Mm-hmm. Euh, Cheikh Omar est candidat à Pikine. Cheikh Omar am na benn tour mu ñëw face à Omar Mendy bi nga xam ne idée la am. Cheikh mhm. Omar moo ko ëppale ay moyens di joxe saaku ceeb. Mhm. ay ay suukar di joxe kër gi xaalis. dem si et cetera donc après les gens vont dire que kii bu toogee. il va nous représenter il va travailler pour la commune boo xoolee ñu ñuy def yooyu ci communes yooyu yëpp am commune yu bëri. développé wu ñu. Mhm. c' le cas un peu partout booy demee et c' est des maires nga xam ne ñooñu duñ fa nekk. Mhm. ça c' est la première chose imaginez au niveau local vous n'avez pas prouvé boo faluwee li la li la tax jóg mooy la première des choses comment se réaliser. Mhm. yow nooy réaliser wu avant ngay xalaat ñeneen au lieu de servir mais tu te sers toi-même toi tu cherches d'abord des passeports nooy dem ba voyager ni ñi am daa ngi voyager. Mm. le minimum bu nit am dans des collectivités territoriale nga détourner ko à d'autres objectifs ça c'est la première question bu ñu jógee foofu nga dem ci ñi ngi dem veille vers la à la à la veille de l'élection présidentielle mm-hmm. euh, c'est vrai que nit ñaa ngi am na candidature yu bëri fi nekk mm-hmm. ni il parle presque la même chose mais rarement nga dëgg ay débat de fond i nga xam ni dina permettre nos mamans qui sont dans les autres villes mm -hmm. dans les contrées lointaines ñu mën a xam kii mooy ku baax kii tane na nañ ko jéem a voter keneen. ki am xaalis moo ëppale. maintenant par rapport à la question de l'immigration et. on oh, ne pas voilà parce que là les internautes ñoom ils la ligne alors Lamine si il est disponible le serveur si il est disponible ñu euh, euh faire afficher le numéro par lequel euh, donc euh, internautes yi mën nañ fa jaaree pour joxe seen intervention ñoom il faut partie de l'émission quand même il faut le signaler alors voilà